aujourd'hui c'est très dangereux ce qui est en train de se passer Tay sénégalais yi suñu le dénkee ñu ne la yow garant constitution bi nga dem ba mënatoo garantir liñ la est ce que Tay du rejoindre li nga nous ni moom la Thierno Bocoum wax maanaam un président par intérim soxlawu ñuko c'est une haute trahison est ce que jotul tay mu démissionner sénégalais yi defal sen bop sen benen choix su dee dañ bëgg a premier ministre ñi xamné sénégalais ñoko tab mais pas mom dañ ko fal uniquement pour mu yaata yumbé pour pousse premier ministre parce que dem na ba sama fauteuil bi nga bëgg tok ci te def tout ba nga tok ci fauteuil bi. ce qui est très très dangereux mooy li ma wax ci début bi. man lolu mako ko wax man maa ni sénégalais war nañu ubbi ben pétition mhm. bo xamné dañuy def euh, pétition pour haute trahison. Mhm. parce que ñi dañu trahir. président soko ko xasee doon amatul ndey amatul baye, amul kharit, amul kilifa amul kula la jàngal alxuraan ku la dugal amul ku école professeur. yow yaay njiitu képp kuy sénégalais. et li tax nga jiite sénégalais yi li si seenu ñàkk dundu, li ci jag. Mhm. mom la ñu dajaloo yow nga taxaw ni yow yaa ko mën a porter ñu dénk la yow li nga ñu wara wax ci génn bu njëkk bo xam déjà. erreur am na fa ndax nee na moom li tax mu njëkk a génn mooy li mu génn fii hmm. tubaab yi ñoo ko doon wax ni dañoo bëgg mu jàkkaarloog ñoom. waaw kon moom parewuloon pour wax ak ñun. dafa pare rek pour njëkk a wax ak. média yu Sénégal média balaa ñu koy naan dafa dem ci tubaab yi waaye Sénégal. ak la ca am tamit ndax Macky Sall gis ñu koy jiiñ ñi dafa tànn ay organe de presse mhm. rax ci benn affaire bu leen neex. Mhm. moom it tànn na ay organe de presse rax ci TFM nga xam ni moo koy camoufler tuuti. Mhm. kon rupture amul foofu kon soo ñëwee ñu am ci yow yaakaar jàpp ni war ngaa mun a changer situation sénégalais yi ci juróomi at yi d'autant plus que wax leen. amu leen wenn kayitu suukar wuy wane ni yéen mën ngeen a jëlee réew mi fii yóbbu ko feneen mais sa premier ministre war a génn ñëw ensemble wax ak ñun wax ñu réew mi fan ngeen ko jëmee amul capacité bi nga ñëw di tëgg benn cinéma di ko layal. Hmm. ba ci wax lu mel noonu loolu c' est très très très grave Tange. d' accord c' est très très dangereux Tange li ma lay wax. d' accord ñu ñëwaat ci beneen point boo xamante ne ñu gis ni mu accentué wu ci. Hmm. xamal ne que kii di prédécesseur am di Macky Sall ba muy dem dafa vidde li nga xamante ni moom la ñu tuddee woon fonds politique nous traduire ko def ko fonds spéciaux muy li nga xamante ne dañ koy voté assemblée nationale mhm. yóbbu ko ci présidence comme nous ñuy voté les ministères bu le budget mhm. budget boobu ñu fay voté ce que nous ñu destiné ko lu jëm ci investissement lu jëm ci matériel ak service lu jëm ci bon fonctionnement ak lu jëm ci wàllu social mhm. moom nee na Macky Sall dafa vidde le fekku fa dara muy ay contradiction yo xamanteni mom ci bopam mo contradire bopam en tant que président de la République parce que bimu mu le 2 avril diggante 2 avril ak le 29 avril ci diiru weer moom nee 40 milliards. Mhm. jëmele ko ci li nga xamanteni moy producteur de pétrole mom mhm. néna changé na garde-robe mhm. tay dëkk bo xamanteni vidé nañu caisse yi dara nekku fa. est-ce que tay mën nga am 40 milliards 40 milliards yoyu mu fayé est-ce que moko ko liggéey ci bilan la wala lu mu fi fekk la. waaw xam nga lolu c'est de la politique politicienne et de la manipulation hors pair il faut li nous avons fait dugal benn baatu pour sénégalais Le comprendre. Le président Bini ni fekku fi xaalis biñ ko caisse noire caisse noire C'est du tontu bi. Nous dañ fait caisse noire yi dafa haram moom ki njiitam Nous avons dafa la caisse noire caisse noire il na man na fekk caisse noire comme ni ko mm-hmm. parce que caisse noire budget Sénégal ñu koy voté. Mm-hmm. budget bi voté nañ ko budget bi ni ñu koy voté du xaalis bu ñuy jël jugal la. dañ ko trimestre ñetti yu ci da day ci budget bi ci yow tout à fait normal Macky Sall mu janvier. février mars mon bu

lolu da japp naa ni dafa don da don daw débat bi c'est-à-dire c'est des manipulateurs dañuy manipuler société bi. voilà xaw ndax comprendre nga li ma li ma li ma li voilà ci bir manipulation société bobu est-ce que tay ki nga xamanteni da nga manipuler sa société manipuler sa askan du temps de l'opposition comme ni nga ko waxee sànq ci njëlbeen ay nit yu naïf manam naïveté manam moy ki nga xamanteni yalla yàlla dala may xel pour nga xalat mhm. nga jël xel bi sanni ko ci ginnaw wax nga ko légui comme premier ministre du temps de l'opposition dafa jënd ay séeru rabalam ne mhm. képp ku top sama ginnaw wadul nga top luma wax nga def ko. Mhm est-ce que on a besoin d'un président de la République en tant que chef de l'État mhm. chef suprême des armées mhm. ñu tous les prérogatives tous les décrets pour qu'on par respect mhm. ak peuple est-ce que war nga jàkkaarloog sa askan di a des intellectuels qui ont amul mais c'est-à-dire ces gens je veux pas les en vouloir Oui, ne opposé mais le Sénégal Oui, mais moi... la waaw à lui seul à l'opposition ça ne nous dérange pas mhm. mais aujourd'hui on va dire le président de la République du Sénégal mhm. avons le président parti Pastef ça ne m'engage pas tout à fait ça engage les militants et les sympathisants de Pastef le président du mouvement Gëm ça engage les militants de Gëm mais le président de la République du Sénégal ça engage tous les 18 millions de Sénégalais tout à fait ba pare Sénégal nekk réew mo xamni ni dafa nek ourul ay ni ci Afrique. nek djeg bu jar am taxaway bu bax ci walu diplomatie wàllu démocratie wàllu géopolitique. et géostratégique am lu muy représenter ci monde bi. Mhm. mais so amé li ëpp ci aw askan. moy li may wooy une la moitié de notre population est une population inapte. et ñi nga xamni ñoy voter voté. Mhm. damay dégg ñuy ndamo 53 de des sénégalais. Mhm. déedéet 53 de liste électorale sax voté lu leen dé 50 3% des Sénégalais qui se sont rendus dans les urnes. des 4 millions. wow 4 millions ont 54. 4 millions voté il y a 3 millions et quelques 4 millions vous Wow, 4 millions bu voté moi arrondir à 4 millions. c'est-à-dire vous faites une liste électorale de 7 millions la. Mhm. millions millions ñoo ont voté. millions millions voté. millions ont voté légitimité ou ça war a mën a nekk benn benn benn benn légitimité boo xam ne day day day day éclate euh, day éclaté wu. day day tàkk leer. kon mais noonu la démocratie di doxee parce que nag élection mise moom bala ngaa doon première wala deuxième dauphine day fokk nga bokk ci casting bi. ñoom ñoo fi nekk loolu la léegi nag li jar a wax mooy léegi est-ce que sénégalais yi defuñu erreur si dañoo def erreur mais erreur bi mi ngi lalu ci ñàkk xam. ñàkk xam googu nag Tange moom moo war a tax sénégalais yi nga xam ne xam nañu mel ni man ak yow. yow mi nga xam ni wër nga adduna bi. man wër naa adduna bi yow information yi ñuy man yi ñuy am man ak yow. Mhm. bokkut ak sénégalais bi nga xam ni moom dafa toog fii juddoo fi yoroo fi xamul lu bari ba pare politique yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo nekk ci jataay bi rek di leen buuree di wax ak ñoom dañ leen di gëm moom foofu la sa rôle nekk yow. d'accord loolu sa devoir la di sama devoir ak képp koo xam ne yaa ngi xam ba pare di ñu seetaan ñun nañu jóg mooy li may woy la majorité silencieuse des sénégalais éclairés sénégalais choisis yi nga xam ni seen bopp baax na mhm. mën nañoo nañoo xalaat xam nañ ñu àdduna bi di doxi ñu jéem a ñëw non seulement ñu encadré ñi tegal leen ay garde fou joyanti leen mais xool nu ñu mën a fexee def ba nangu réew mi ci nu mu gën a gaawee pour defar ko. d'accord mais tey suñu ñu demee ba nga xamante ni loolu nga wax la majorité silencieuse yow mi nga xamante ne wër nga àdduna am nga expérience am na loo xam te sénégalais bi toog fii xamu ko. waruñu toog dañu war a jóg. ñu dem ba nga xamante ni régime bi dañ ko transformé ci li nga xamante ni antidémocrate la di xeex li nga xamante ni mooy liberté d'expression amatoo sañ-sañ wax sa xalaat ba premier ministre taxaw

bi nekkee ci kujje gi dañ doon dañ doon nekkoon ci benn populisme. Mhm. daan tëkku tubaab yi. waaw daawoo ko dégg ñuy tëkku occidentaux yi. naan France moo jël kuddam teg ko ci suñu loos. Mhm. dégage mais bi ñu jëlee réew mi sénégalais yi la ñu commencé di tëkku. di tëkku waaw léegi xam nga lu waral loolu. Mhm. mooy li ma lax nii complot bi nga xam ni moo leen jàppale. ba ñu agsi ci nguur gi tey. ci ñooñu ñuy tëkku tey ci presse sénégalaise bi da cee am ñoo xam ni tamit. defuñu woon seen wareef parce que ñu ci tollee Ousmane ko moo daan wax. Mhm. su ma see gàkk ñoom ñoo koy gàgganti. Mhm. bu jumee ñoo koy jubbanti su waxee lu dul dëgg ñu def ko dëgg su commencé sax balaa àggale ñu ambaleel ko ko tegal ko ko. Mhm. bu daan wax danaan man soxlawuma ko def ak man débat d'idées pour ñu mëna xam sama contradiction ak sama li contradictoire ci man soxlawuma kuma poser question bo xamni ne ma réponse bi tam yéen ci daan and yéen li ëpp ci yéen yéen daan and di ko ko defal motax tax bi mu toogee xam ni yéen a war première pas ci luy démanteler mensonge boobu mhm. moo tax fi mu mën jaar moy doole ji ngeen ko dénkalu mu jaar ci pour napp leen man japp naa ni bu fekkantoo ni day wax jëmale ci affaire impôt bi muy def allusion mhm. te muy dëgg ci mom mais est-ce que xam nga les impôts du Sénégal ñi fi fayul impôt mais li sénégalais yi di ñàkk ci demande de visa te duñ leen may visa mën naa doubler impôt bi Sénégal war ko participer c'est vrai dans les consulats dans les ambassades yi nga xam occidentaux yi ñoo ko fi ak le reste des pays civilisés mhm. pourtant ñoom loolu lañ doon mhm. société yi nga xam ni bi yi ñu ngi ko fi amoon ñoom newoon nañ bu dañuy def dañuy defaat euh, renégociation lan la ñu la renégocier bi ñu ñëwee léegi lan lañ fi fekk lu baaxul et lan lañ fi fekk lu baax lan lañ ci joyanti lan lañ indi lu bees tey boo xoolee plus de 52 milliards de francs CFA sénégalais ñu ngi koy ñàkk ci ay consulats pour demande demande de visa manam bo demee tay ci ben ambassade Ben consulat journée bi nga dem da nga fa plus de 200-300 personnes yo ont dañuy def dépôt kenn ku ci fay francs ñi ci gëna a ay francs lañuy fay légui ñu jël leen leen leen pendant semaine ñukoy def ñu tok deux semaines ñu woo leen visa wala nga ñu jël sa passeport duñ jox duñ mais loolu ñom luñ ci luñ ci duñ ci wax ñaata sénégalais ñoo ci problème ci problème rendez-vous

La <laughs> femme, lañu yow dans l'opposition France alors que biñ peuple sénégalais peuple sénégalais